su état bi meloon ndax permettre na leen lépp loo xam ne dafa nekkoon ci li ngeen bëba mëbatoon ci réew mi ngeen mun kaa dérouler wala boog dafa jafe woon jafe na ndaxte gis nañu ne ci diiru ñaari weer def ngeen lu ñuy tuddee levée de fonds ba am ay eurobond muy koppar bu ñëw dole si ci dette bi nga xam ne bor bi nga xam ne réewum Sénégal def ko amale ndax loolu lu mu wund moom mooy ne fekku leen fi dara wala boog état des lieux. waaw d'abord euh, dama bëgg préciser rek maanaam leeral ne. lii ñuy def nii tey du pour def bilan ndax bu fekkee ne mandat cinq ans la te at wu nekk nu mu tuuti tuuti trois cent soixante cinq jours la kon xanaa mën nañ jàpp ne man liñ ma appal mille huit cent vingt cinq jours la mille huit cent vingt cinq jours nag doo ci def cent jours nga ne maa ngi def bilan. lu c'est mais exercice la boo xam ne. dafa am lu ko wundu te jaar na tamit leeral balaa may ñëw ci laaj bi nga laaj bi may dem France yàggul dafa am ay journaliste yu nekk bitim réew yu bëri yu demande defoon ay demande d'interview ma ne duma dem sama première sortie ma di ko jox presse étrangère kon balaa may wax ak waa bitim réew bu dee askan wi laay waxal ma jaarale ko ci presse Sénégal ba pare mu wóor ma ne tamit feeg ak diir dinaa delluwaat te mën na am ñu defaat même sollicitation yi te mënoo dëkk dina déedéet déedéet ma ne kon jot na gannaaw bi ma fi tooree trois mois parce que man ñetti weer sax laa jàpp na laa def man nekkuma ci bilan cent jours deux cent jours trois cent jours maa ngi ci def naa ñetti weer diggante bi jot nañoo xool am lu ñu gis am lu ñu nekk di saytuwaat am na jot app bi jot na pour ñu mën a toog ak presse sénégalais à travers ñoom ñu wax sénégalais yi effectivement fii lañ jëlee réew mi. jéego yi jot nañ ko def waaye loo gis rek lii moo ko waral pour sénégalais yi gënu mën a comprendre suñu démarche gën ñoo mën a gunge. bi ma ñëwee biñ ma falee déjà ma am avant may prêter serment laa commencé xool fan laay jëlee réew mi. première chose bi ma def boobu maa ngi hôtel Azalay dafa am ñi ma woo ñoo xamante ne ay sénégalais lañ. ma yàgg di leen suivre wóolu leen ci seen xalaat laaj leen naka la ñu gisee situation bi ñu wax ma seen xalaat ma commencé saytu ba xam ndax réew mi may jël lii ay stock de sécurité ci wàllu lekk lii approvisionnement ci wàllu carburant pour courant ak leneen ak leneen loo xamante ne mën na jàmp fan lañ ci toll. waaye xel xel boobu ñu am ci njëlbeen xool ci secteur sensible yi fan lañ ci toll wax woo direct DG SAR bi mu ñëw ñu waxtaan ak moom mu am lu ñu wax woo DG Sénélec woo directeur du commerce intérieur woo ñeneen ak ñeneen ci biir administration bi ancien ministre du budget woo ñeneen togg ak waa FMI woo ñëpp ci lañ xam ne situation bi ñu fekk nii xam na doy waar trop trop trop trop pour dire le moins waaye tax na tamit ñu gaawantu jël suñu matuwaay ba bato bi nga xamante ne dafa na fi weer mënul décharger parce que fayuñu ko woon ci saar ñu defi pexe ba bato boobu ñu fay ko ba beneen ñëw ci gannaaw ñu fay ko pour ñu mën a assurer approvisionnement wu saar ak hydrocarbure mu wóor ñu ne tamit duñ toog weer rek courant coupé ñu fekk tamit ay yeneen mbir yu doon nit ñu doon gaawantu di def parce que xam nañ ñu ngi dem ma jël ci misaal rek xëy na dinañ ci egg ndox nit mën na bàyyi lu ne ba mu des ndox ñu ñëw le 29 mars ma fekk sama prédécesseur ki ma fi bàyyi ki ma fi wuutu ñu mu àndal signé arrêté pour yokk ndox mi le 29 mars kon dama doon toog rek facture yi facture yi naaw ñu ne ñii la fekk ne ñoom ñoo ko signé ma gisaat ay contrat yoo xam ne surtout ci biir liggéeyu hôpitaux yi dafa am contrat yu ñu doon baral boobu dafa guma sax prestation de serment ci la woole le ministre de la santé de l'époque ne ko contrat tel tel tel buñ ko signé contrat boobu ñu taxawee ko te li ma ci gisoon ci ay surfacturation bu ñu leen waxee ngeen ja ngeen yaakaar ne sax loolu mënta nekk biir Sénégal ba tey dañoo bloqué lépp luy contrat ci wàllum santé yi nga xamante ne commencé wuñu woon di ko exécuter parce que le fi ñuy egg ci surfacturation c'est inacceptable ba ma ñëwee seet si sama euh, ki ma fi wutu ñu nekk di visite bi ñu toogee ci jeudi boobu ma ne ko gis naa ne ñu ngi def benn convention boo xam ne convention la ak Dakarnave fekk na signé woon nañu vingt cinq ans avant mais convention bi arrive expiration ñu gaawantu war ko joxewaat vingt ans plus tard pour les vingt vingt prochaines années ma gis ne nu ñu ko tegee les intérêts Sénégal yi ça n'a pas été préservé ma leen bàyyi leen ko kase leen loolu defaat leen un nouvel appel d'offres pour mu wóor ñu ne que les intérêts du Sénégal sont en compte te bés bu ñu ko defee ba pare ngeen gëm-gëmale ko convention bu ñu arrêté ak bu ñu am di ngeen xam ne intérêt Sénégal préservé nañu ko ñun par rapport déjà réalité finance publique Sénégal dañ ci njàgg am doute ak certitude ne que am na lu ñu waroon càmbar ci biir dès 2018 suñu parti dafa bindoon ministre des finances bind FMI bind banque mondiale ne leen ni ñu gisee ñu saytoo finance publique Sénégal suñu xel dalu ci te bu ñu ñëwee ba toog effectivement fekk nañ situation boo xam ne xëy na mënoon nañ ko gën a saytu mu gën a sell gën a set ci réew mi donc évidemment mënoon na am jafe-jafe ci lu gaaw surtout que pendant ñu doon def loolu am ay jafe-jafe ñu ngi doon signe ay ay yeneen ay yeneen décret pour que ancien ministre ñu kon ñu am li ñu leen di fay yeneen décret pour ce qui est des d'autres travailleurs di jël engagement yoo xam ne état mosu koo nangoo jël mu jekki jékki yéwén ci mu doon loo xam dañ ko ñëw ñëw rek fekk ko suñu mu suñu kaw te te te du ñoo ñoo ko jël surtout que ñun ñooy ñoo nar a doxal am responsabilité cinq prochaines années loolu ànd ak environnement boo xam ne nag boo seetloo déjà sur le plan conjoncture internationale nit ñaa ngi subir les effets de la crise Covid 19 ba tey di subir e wu guerre Ukraine ñu ne deetuwaay mu am une guerre au Moyen-Orient boo xamante ne xamuñu fan lañuy fan lay mujj kon évidemment conjoncture internationale c'est une conjoncture très difficile dëkk bi nekkul na de lépp daf fi amoon jàmm rek ñë ñëpp di liggéey ni ñu war a liggéey ku ne xam na de deux mille vingt et ba deux mille vingt quatre bi bi bi may Sénégal yi di jox lenge yi mais coow ak jafe-jafe amoon na Sénégal à telle enseigne que liggéey gi xawoon na lompoñ kon li nga xamante ne ci liggéey googu lay jële jóge nguur gi di ci am koom di ci mën a jële xaalis di ci liggéey évidemment liggéey boobu xawoon na sooxe kon sur tous les plans les indicateurs étaient presque au rouge wala boog à l'orange loolu la ñu jëlee réew mi mais alhamdulilah taxawaayu askanu Sénégal ak même leader politique yi nga xamante ne dès vingt deux heures ba minuit presque ñoom ñëpp félicité félicité nañ ma nit ñi ragalee ragalee bitim réew xam na ne que ce peuple là mérite d'être soutenu kon am nañu crédibilité boo xam ne malgré conjoncture bu metti malgré malgré situation yu bëri continuer nañu dañu def confiance ba Sénégal mën a def loolu ñu am tamit ay ministres yoo xamante ne xam nañu seen liggéey notamment ci wàllu finance ak wàllu coopération ak ñi nga xamante ne jël nañu leen ci domaine boo xam ne mën nañoo wone yoon wi. yaa ko waxal sa bopp da nga fay fekk benn situation bi nga xam ni doy na waar suñ la suñ la déggee et pourtant dañoo toog euh, ñaari weer. lu matul ñaari weer lépp lu nekkoon borse wala agriculture daanaka ba mu des benn bu ñu war a auditer nga daal di koy fay ñu ni déetawaay nga ni da ngay wàññi dund gi le ministre de finance nee na lu toll si juróom fukk ak ñeenti milliards lañ ci dugal ñuy xaar yeneen pàcc yoo xam ne dañ ko war a wàññi yu si mel ni ko courant alors sénégalais bi tey lan la bëgg a xam mooy naka ngeen def ba mun ngeen ko mën a tenir. d'abord il faut question de réallocation de ressources la et de du sens des priorités. vent d'espoir bi ànd ak suñu élection ak peuple sénégalais lu mu xaree tànk tubéem ci défendre les valeurs républicaines et les valeurs démocratiques dafa mérité woon ñu sargal ko ci loolu. dama ko waxoon benn jour que bi ñu doon def campagne électorale nit ñi di daw toujours am na échange ak jaloog buy am ci diggante ñu ñun nekk ci kaw oto yi ak ñiy daw di wër suñu oto yi lu ñuy wax mooy sonn nañu wàññi leen dund gi dañoo bëgg liggéey en tout cas seen doléance dañ koy dégg nga xam ne coono coono ngi ci askan wi. kon boo ñëwee évidemment ni ñi waxoon nañu ne que duñu dem ni ñu waxoon nañu ne que mënuñoo wàññi dund gi même bu ñu waxee ne dinañu wàññi am na ñu toog ñu nekk ci secteur yi toog tele ne c'est impossible. mais luy suñu fort mooy mosuñoo gëm impossible te bëgguñu xam sax lu impossible parce que loo xam ne c'est impossible rek doo ko jéem bañ a xam que nangam ak nangam c'est impossible moo tax ñuy def l'impossible kon ut nañ ay ressources am na lu ñu am am na loo xamante ne mu ngi fi woon ñu waroon ko alloué loo xamante ne du urgence am na loo xamante ne état doo moo ko doon jël di ko di di fas yéene ko yenn ci ba renoncé ci ay recettes maanaam bàyyi ay tax ak leneen ak leneen ak waxtaan tamit ak partenaires sociaux yi parce que ni ma waxtaan ak syndicalistes yi waxtaan ak secteur privé yi ñu toog def ay travaux ay séances de travail ak gouvernement première ministre ak gouvernement ci la ñu xamee ne tamit que am na ñoo xamante ne xëy na seen marge war nañoo mën a def effort budgétaire boo xam ne ak li ak bi jot a def ak ñoom buñ ko xoolaatee am na foo xamante ne mën nañ cop comp fu pour pour gën a oyofal yen wi sénégalais yi ba fan benn certitude rek laa leen mën a jox mooy suñu engagement ci noppal sénégalais yi du wàcc mukk te lu ñu am ci ñoom ci yërmande rek ñu gis ñu def ay jéego ci wàll na ñu xam ne ki li nekk ci suñu xol ci yéene weesu na foofu foofu di dem kon lu ñu wàññ na sénégalais yi xaar na ci fii ak ay weer dinañ ko wàññiwaat parce que lenn li ci méthodologie d'approvisionnement yi la yenn yi ci ay nit ñoo xamante ne fas yéene wuñu woon taxaw ci liy noppal sénégalais yi je un exemple simple ci lu ñu fas yéene def ci euh, par exemple gis nañu ne